bisimilah aousu billahi a asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yaflahu xawli mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa baraka ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam di sant Cheikh Ahmadou Bamba di wax tey nag ñu ngi fii Argentine ndeysaan ba nga ñëwee rek ci mbokk sénégalais yi incha allahu taala waxtaan ak ñoom ci bis bi nga xamante ne bikki nii mooy bisu Cheikh Ahmadou Bamba bi xaadim waxtaan ak ñoom incha allahu taala mbokk mi salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. bu baax tur bi. Ibrahima Ndiaye. sëñ Ibrahima ñu ngi lay nuyu. ñu ngi la koy delloo Fall bu baax a baax. tey noo gisee bisu màggal gi. waaye doo leen sant rek war na yàlla doo leen sant bu baax a baax a baax macha allah. tubarkàlla neex na foo jógee arante nga nekk waa provincial yi. waaw man nag euh, maa ngi jógee Lignes. Lignes waaw presque si capitale la mais si ginnaaw tuuti rek waaw wax dëgg yàlla mais màggal gi moom tubarkàlla wax dëgg yàlla sant nañ bu baax a baax a baax a baax neex na lekk yi doy na ah njabootu lislaam gi ñu fi màggal tu tànk yi moom daal tubarkàlla daal tubarkàlla tubarkàlla sant bu baax sant bu baax a baax waaw ñu ngi la koy baax na ba tey incha allahu taala ñëw ak yéen ñu ngi fii Argentine ci mbokki taal yoo xam ñooy sénégalais yi sëñ bi noo tudd ku baax euh, sëñ Matar sëñ Matar euh, gis tey bi su màggal gi sa waaj yow dinaa mel ne fa yàlla neex na loolu moom ana di ñaan yàlla suñu borom yàgg ñu fay bàyyi yàgg koo at barki borom Touba barki xasida yi. bis tey noo ko waaw macha allah macha allah bis moom neex na lool tawfeex na quoi waaw lépp macha allah alhamdulilah. màggal non màggal gi moom mosu fee am moom barki Serigne Touba. macha allah macha allah màggal 2023. Hmm. mosu fee am jërëjëf Serigne tubaa rek la ñuy wax. dëkk bi metti na xaalis bi yéeg na waaye ñun yëguñu ko ñun taalibe Serigne Touba yi barki Cheikh Khadim Argentine gii ah. yëguñu ni xaalis bi. dafa daanu ngir Serigne Touba. barke yu ni kontaan naa ci kon kon mbiru fees na lekk nga ma suur. non man lekk ma dara bàyyee naa leen ko. dégg naa la jërëjëf xam naa ne kon salaamaaleykum wa rahmatulah. ku baax ñu ngi lay ziare. bëgg nan la bu baax. tur bi nan la. Serigne Mbacke Sène. Serigne Mbacke noo gis bis tey. sant yàlla rek. alhamdulilah si Mouhamed di sant Serigne Touba bu baax. di ñaan yàlla sunu borom. ñu teewe ko déw ñu bare bare bare. wax dëgg fa yàlla organisation bi moom. jàll na neex na man boog li ma fi fekk si màggal moom gisaguma ko fi waaw di ñaan yàlla sunu borom daal may nu ñu fekke ay déwéni déwéni déwén di nuyu suñu jëwlin yi nga xamante ni ñoo nekk ci kaw ku semel mel ni jëwlin moo taala Sall ak sëñ Bamba Jon ñu ngi leen di ziare bu baax jërë ngeen jëf. tey loo yëg ci bis bi yow bis bi yow loo ci yëg. bànneex rek ndax ni koy dundee Sénégal noonu lañ ko dundee Argentine gii waaw ni ñu koy dundee Sénégal noonu lañ ko dundee Argentine gii kontaan bu baax nag si ñëpp waaw di gërëm waa télé bii Touba TV ñu leen di sant bu baax ndax jàpp nañ si waaw jàpp nañ si bu baax di gërëmi technicien bi Gambien ak sunu mag Gépaate jóg ku baax la jàpp na si bés bi message yi yëpp moo ko jàllale ba bi mel ni mu mel waaw message yëpp moo ko jàllale ba bés bi mel ni mu mel ñu ngi koy sant bu baax di ñaan yàlla sëñ góor a yàlla gën a dëgëral taxawaayam. jërëjëf kon sama technicien topp ma incha allah ñu gën a dëgg ci góor yàlla yi nga xam ne ñoom ñu ngi fii tey ci incha allahu taala doxal doxal doxal doon am solo bisimilah salaamaaleykum wa ba tey ñu commencé sëñ Dame ñu ngi lay siyaare. ah waaw sëñ maa ngi lay siyaare baax baax. naka xéewal yi. sant nañ Sëriñ Tuubaa bu wér wér nag. tey noo dundee bisu màggal gi tey noo ko dundee. waaw xaa ànd ak mbégte rek di ñaan sëñ di ñaan suñu sëriñ sëñ Muntaxa suñu borom yàggal ko fi lool ci ànd ak wér di siyaare mbokk taalibe mbokk julli yëpp fii ci Argentine di ñaan ñëpp tawfeex di wax naan jërëjëf Sëriñ Tuubaa jërëjëf Sëriñ Tuubaa jërëjëf Sëriñ Tuubaa comme daaw defoon nañ ko ren ñu fësal na ko chaque année rek magal gi dañ di gën a yokk waaw macha allah di ànd ak yéen ñi nga xam ne ak big di big di big di am nga xam ni moom sak année moom tamit wax dëgg yàlla di ko ànd ak yow mu taxa mu euh, ta mu taxaa Touré di ko ànd ak moom mu nekk euh, jëwriñu fii ci dëkk bi tamit nekk góor yàlla nekk euh, ab taalibe nekk ab murid saadix di ñu ñëpp ñu ci bëri xam nañ ko moom wax dëgg yàlla di sant Serigne Touba bu baax a baax ci bisu tey bi di ànd ak mbégte nag. di ziare mbokk julli yi fi nekk yëpp ak mbokk taalibe yi fi nekk yëpp wax dëgg yàlla bi bisimilah moom sant nañ bu baax a baax a baax jërëjëf sëñ Tuubaa ma Ndiaye. salaamaaleykum wa rahmatulah si ba ñu ngi lay kontaan nañ lii na. nan la. Mbodj Ndiaye. na nga def ay sant yàlla. Ah, na ci yow tey jii. neex na ma bu baax quelque mu wax dëgg yàlla alhamdulilah rabbil al sant yàlla na fi yàlla def jàmm rek def fi waaye vraiment neex na kontaan nañ trop waaw neex trop wax dëgg yàlla kontaan. bis ko noo ko dundee. waaye kontaan rek sama xol na lépp kontaan naa moom gi mu fi am màggal gi rek mu fi boy am bañ dalee Arsanté ba léegi gi màggal gi mu neex na trop neex na trop a daal li may ñaan yàlla na fi yàlla jaf jàmm xiiwal rek yàlla na fi yàlla def jàmm xiiwal ci barke Sidna Muhammad ci barke borom bis bi balaa déwén yàlla neex ñu fi ñëw ñëp bëre bu déwénee kenn ku na war oto ñu indi ko fi moom laay ñaanal ñëpp ku fi taxaw rek yàlla yàlla may oto bu déwénee nga gaare ko yàlla ko yàlla def waaw waaw kon di misa yooyu ñu continuer dox rek xool mbokki talibé yi incha allahu taala salaamaaleykum wa rahmatullah alaykum salaam. Diouré ñu ngi lay ziare. mais delloo ziar murit. tur bi nan la. kante la Kanté lañ koy wax. maa ngi lay bëggee. man ñu lay delloo bëggee sëñ bi. ay amoon na bis bi tey. Cheikhul Khadim bi. waaw bis bi de xanaa sant sëñ Tuubaa rek. waaw bis bi de taw féexe na lool de taw féexe na lool de leen ci yaakaaroon lépp daal yàlla dogal na gis nañ ko fi. benn day doy na mbooloo mi ñëw nan ñëpp ñu wax rek yàlla lépp doy na xanaa doole doole santaat sëñ Tuubaa rek. waaw doole santaat sëñ Tuubaa di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te wér waaw di ñaanal xanaa li ci des xanaa ñu ñaan yàlla ci barke bis bi mu may ñu nun yeggalee kër sëñ Tuubaa gi def ko sato bu mag waaw ba fu waay nekk ba bu déwénee daal yàlla nan màggale ci kër sëñ gi waaw bàkkante jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam maa ngi ziar bokk mi tamit nan la Babacar la Babacar Babacar anoo yëge bis bi waaw bés bi xanaa xanaa bëgg rek bëgg comme comme comme nin koy nin koy waxee rek at mu ñëw nga ne moo moo dàkk at bi jàll xanaa di gën a sant sëñ Tuubaa rek di ñaan yàlla fekke ko ay at yu bëree bare bëree bëri waaw non gisa tey bi ren bi ak bu daaw bi par rapport ak daaw waaw organisation bi moom jaar na yoon jaar na yoon comme li ma la wax rek at bu ñëw nga ne moo dàkk at bi jàll sant nan bu baax di ñaan di ñaan rek fekke ko ay at yu bëree bëri jërëjëf sëñ Babacar jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah murid ñi ngi leen siyaare ku baax ana kan wax baax naka xéewal tur bi nan la Babacar Sarr suñu Babacar Sarr ah yow de sama doom bàyyi nga man laay Bamba Sarr laa tudd ak sa laay ñu ngi lay siyaar baax naka xéewal yi sant borom bu baax moom mel na ne ala daw mena wuy si ne borom xanaa ñaan yàlla rek allahuma bu ñu fi yëkkati yàlla na ko yàlla nangu ak arafu bu ñu fi jàngi yàlla na ko yàlla nangu mel na ne daal ni ko sëñ bi woote moom yéen gi ngi ci yàlla na yàlla barkeel dañ fekk ay at yu bari te rafetu fekkee barke yonent bi sinon macha allah gis organisation bi ren. organisation bi jaar na yoon wax dëgg yàlla xëy na c'est la première fois nag mu ñu fi fekk mais ñi ko daan seetaan ci télé bi ay mel na ne moom tabarakallah lépp lépp jaar na yoon lépp jaar na yoon wax dëgg yàlla. waaw gu njëkk fii ci Buenos Aires. waaw fii mooy sama magal gu njëkk ci Buenos Aires Mendoza laa daan magale foofu laa nekkoon waaye lii moom wax dëgg yàlla dal na xel liñ gis doy na lool wax dëgg yàlla yàlla motali tabarkeel jërëjëf. jërëjëf mbokk yi xam naa ñu ñëw ak yéen rek incha allahu taala continuer ak yéen ci barab bi kii mooy soxna soxna jaar jaariyatullah soxna jaara mi mel ni moom mi ngi ci waañ wi di sànn fa nga ci faw génn soxna jaara maa ngi lay nuyu am mbégte rek ci berne yi laa def barke moom tuwa <laughs> waaw gars yi maa ngi leen di ziare salaamaaleykum wa rahmatulah. kilifa gi noo tudd. Ah, waaw Massamba Tanine. Massamba. waaw bi. bi de wax dëgg yàlla kontaan nañ trop. Mhm. am na solo trop. sant fan nga jógee si. waaw maa ngi jógee Salta province Salta Tartagal. Salta nga jógee Salta province Salta dëkk naan Tartagal. ñaata di yaa ngay bi yaa xëy wala undi yàlla. waaw maa ngi départ mardi ay 6 heures du matin. teg si capital ay mercredi ay 6 heures du matin. lépp ngir màggal si rek 24 heures pour màggal si rek. pour ñëw màggal si mën a bégee sama sama mbokk am ay courses ma fi doxaale après liggéeyaale fii ba si kanam. waaw am nañu mbégte bu baax si màggal gi wax dëgg yàlla. suñu mbokk taalibe yi gën ñëw gisante am na mbégte bu baax wax dëgg yàlla xéewal yi doy na Baay Faal doy na ñu ngi si biir si njàng nekkoon si teewlu xas yi wax dëgg yàlla am nañ mbekte bu baax daal am nañ mbégte bu baax baax daal wax dëgg na namoon namoon nan bi si mel nii daal ndax taw na ay ay weeru yàgg si àll bi gée gée gis Sénégal yi daanaka ñun dama gën a neex sax dëkk bu nekk ay ñetti Sénégal la ñuy dekk mu ñëwee gis mbooloo mi rek ak ak ak ak yërmaane gi ak taalibi gi rek suñu xol day sedd dañuy kontaan lool waaw alhamdulilah jërëjëf ko baax jërëjëf Serigne yàlla na yàlla mën a daal ci jàmm amiin amiin amiin jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum ku baax ku baax ñu ngi lay waaye ñi ñi ngi ziar bu baax a baax di ziar bu baax di sant alhamdulilah. nu dund bis bi tey. bis bi daal wax dëgg yàlla alhamdulilah. vraiment yëf yi war daal mbirum Serigne moom amul tànki ginnaaw tànki kanam rek waaw ndax saa su ne moom dangay ngay gis loo jaaxal waaw ndax ñun man de taalibe Cheikh la waaye. màggal fii mosuma koo tardé waaw waaye màggalu ren gi moom wax dëgg yàlla macha allah waaw macha allah. yow foo jóge ci dëkk bi ñëw màggal si. man Xossi Sepas laa jóge Xossi Sepas ñëw ci màggal gi vraiment liñ Sénégalais it moom fu dem gis nga ni ñuy mel ñëpp benn lañ waaw ñëpp benn lañ kon bu ñu jógee Xossi ñëw fii ñëw ci màggalu Serigne Touba gi dañoo def li ñu war ndax defaluñ ko kenn suñ bopp lañ ko defal ndax Serigne Touba moo ni ñëw leen sant le ma yàlla waaw kon képp kuy jullit rek moo xam foo bokk war ngaa jàpp ci bisam bi sant le ko yàlla ndax boo ko santale yàlla balu mi ngi mel ni balu tang si boo dóor ci miir day del si loo ci ñaan ak loo ci def day del si waaw kon wax dëgg yàlla ñi ngi sant ñëpp di sant ñi nga xam ne ñoom ñoo ñooy jëwriñu daayira yi bi fii muy ñoom taala Sall ñoom ñiñ ko séqal ak waaw kon wax dëgg yàlla yéen ñi nga xam ni muy waa ji Gambie bi yor télévision bi di sama waay maa ngi ñu ngi leen di sant ak yow mi yor micro bi di tàllal gars yi ñu ngi leen di sant leen gërëm di leen wax ni la yàlla nañ ko teewe déwén xéwal yi yokk man ngi gën a yok réew mi ñu nekk ni yàlla def sotti fi xéewal ba maanaam liñ fi euh, ñu jële fi lu ñu kawe suñu njor su ko defee ñu ñaanit dëkk bi suppeeku alhamdulilah sant nañ bu wér mu mel ni incha allahu taala ñu topp ñu rek ñu nekk ci mbokki taaliba yi salaamaaleykum wa rahmatulah laay maa ngi leen di siyaare bu baax sama jëwriñ lépp jàmm waaye yéen a ngi am aja bisimilah ku baax tur bi nan la Moustapha sëñ Moustapha noo noo dund bis bi tey waaw bés bi xanaa la suñ suñ boromam rek ndaxte bés bi moom bésu cant la ko lim ci diggee suñ borom defal ñu daje ceeg moom rek ndaxte bés bi moom attan lu ne mën na lu ne it lu ci waay fas ku ci waay yem daal yaa fi yemal sa bopp waaye bés ba mën na lu ne. nooy gis tey organisation bu ren bi par rapport ak daaw. waaw organisation bi alhamdulilah ñu ngi sant bu baax a baax ndaxte mbir moom daanaka heure bu ñëwee ñëwaat rek am na jàngat boo xam ne e, di nga ko ci am ndax daaw xëy na demewut ni ren macha allah lépp jaar na yoon ko it ñoom alhamdulillah ndaxte lépp a ngi lépp ngi lépp a dox bernde yi ñoo ngi dox. Eh, njàng yi mu ngi dox ko it duruskat yi it ñu ngi durus kon alhamdulilah màggal daal ni ko war a dundee ñoo ngi koy dundee noonu waaw. jërëjëf sëñ Moussa baax na kon xam na bu la neexee sëñ Abé nga topp ñu xool ci bunt bi ñu ci biir incha allahu taala su ko defee ñi nga gars yi nga xam ne ñoom ñooy mbokk bi salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. ku baax tur bi nan la. man Modou Fall laa tudd. sëñ Modou Fall tey noo dund bis bi. non bi franchement bis neex na trop trop trop gars yi kontaan nañ Sénégal yëpp teew nañ vraiment màggalu Argentine defaat na beneen jéego quoi ci àdduna wax dëgg yàlla parce que màggalu Argentine àdduna bi yëpp dañ koy xaar man bett na ma daal vraiment mënu ma wax dara parce que sama xol dafa fees mais suñ tuwaa moo toll noonu quoi yàlla na yàlla def xéwal ñu koy teew ay déwén yu bari barkeb suñ tuwaa kontaan naa trop fan nga jógee màggal si yaa ngi ci provincial yi wala yaa ci capital bi. waaw man maa ngi jógee Merlo. si. ñaata bi wala ñaata ora. una hora laay biyaxee contraint si. mais franchement kontaan naa quoi. nañ trop trop. suñu xool sedd na quoi mais suñ tubaab moo mel nii quoi. toll. non suñ tubaab moo mel nii. franchement gars yëpp kontaan nañ. jaajëf. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa yaañ mbaa gaañ wu ci affaire yi topp affaire yi xéwal gi rek <laughs> ah waaw daanaka <laughs> sëñ naka nga dund bi waaw wax dëgg yàlla am nañ mbégte ak contentement bu baax a baax vraiment ndax euh, ndaysaan yoonu murid dafa neex ndax euh, Serigne Touba dafa liggéeyal suñu borom loo xamante si donc tey daa woote bisam bi pour ñu sant la ko yàlla donc yaakaar naa ne nag euh, ku Serigne Touba woo pour pour nga ko yàlla yaakaar naa même bu la fekkoon ba kirikoro war ngaa mën a dagg lépp looy def ñëw teewal sëñ Tuubaa ndax daanaka du njariñam moom suñu njariñ la ñun ndax euh, sant yàlla ku la ci woo yaakaar naa mooy kilo bëgg ndax euh, wax dëgg yàlla yàlla dogal na ne am na ñu fi fekkoon daaw te ren fekku leen fi kon bu yàlla dogalee ñun ñu fekkawaat ko donc loolu sant sëñ Tuubaa bu baax la ak sant yàlla bu baax a baax tey di ñaan suñu borom def tamit ñu teew ko ay at yu bëree bare bari wax dëgg yàlla am nañ mbégte contentement bu baax si bis bi ndax taaru na macha allah am na organisation dëgg yàlla ñun ñoo ngi jógee ba Morino una waraay wiyaaxee daanaka da xaw na sori waaye nag ku tedd ki moom dara wu ci moom ndax danaka moom jaral nañu lu ne donc am nañ mbégte ak contentement vraiment teew nañ ci bis bi organisation bi neex na alxuraan ji neex na xasida yi neex na am nañ teewlu déglu nañ waxtaan wi am na solo te wax dëgg yàlla njariñ lañ fi jëlee vraiment donc ñi nga am te bu baax ak contentement ci bis bi di ñaan suñu borom def ñu teew koy at yu bëree bëri di ñaan waaye suñu borom yërëm leen ñi nga xamante ni yàlla suñu borom dogal nañu danoo tawat nekk ci hôpitaux yi suñu borom tamit fëgg seen bopp ñu jóg ba mën a delluwaat ci njaboot gi yàlla suñu borom dogal ñi nga xamante ni dañ nekk am wér di xelit suñu borom delluwaat seen sago ba mën a delluwaat seen ndax maanaam tukki dafa metti tukki dafa metti te yàlla dafa dogal ni que ni boo fi nekkee doo bëgg doo bëgg sax safay xam ci li nga nekkee wallaahi ndax da ngay muñ lépp rek waaye nag lépp sant yàlla rek ndax sant yàlla bu baax a baax jërëjëf jëwriñ mbégte kontaan asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah mbokk mi tur la Saliou. sëñ Saliou Baye Fall. waaw <laughs> ñoo ngi ziar wér waa Diori waaw. naka xéwal yi ñoo ngi sant yàlla bu baax la. sëñ Saliou tey noo dundee bés bi. waaw bés bi moom wax dëgg yàlla tey faw xana loolu. faw xana loolu waaye nag ci waral bés bi moom ku nekk war naa xam ni bés bi nii rek la mën a demee ndax tayam gu nekk day gàcceel dëmbam. waaw te bés bi tey wane na ko ndax gis nañ fi yeneen yoo xamante ni ay daanaka amul woon année année passée. loolu mooy waral ni kon la Serigne Touba waxoon ne sama tay gu nekk day gàjjee sama démb su ma taxal woon ayam mi nal ayam exactement exactement noonu la demee kon lii firndeel na ko waaw lii liñ siy doole nag mooy gën a góorgóorlu rek te xam ne ñun dañoo doon ay muur muur dëgguñu fenn waaw suñu borom moo ñu ko nattoo mu doon lu metti nag waaye nag eh, fu ñu mën di nekk nañ si ànd ak ak taalibe ak gëm Serigne Touba ak digg liggéey saa su nekk tey moom wax dëgg yàlla kontaan nañ ci axlu bi waaw suma ma jumul sama technicien xam naa waxtu yi li ñu amoon yaakaar naa ni jeex na am naa incha allahu taala dañuy yem ak yéen fii ci jotaay bi ba beneen yoon incha allahu taala ñu àndoon ci ak technicien bi nga xamante ne saan mooy Gambie Big Dealer ak ki nga xamante ni mooy Gor Seck Touba TV di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen beneen numéro incha allah jërë ngeen jëf